jambaré di firé armu yi. man mi sa féké na waaw ay ñom god ah, ay ñom lasum waaw man ñoo ñoo nek sama ginaaw ay peul ay badara wa Campos wa ay wa gey wa yépp ana ana Ibu Ippal ana mu. Ippal moy fi sama sama longo la sama wala dina ko gis wajjo tamit ni ko nango sonu ci làmb gi noonu. billaahi sama wala la amé combat gan gan kenn du nelaw gaay dañ ci japp war Serigne Touba mbaga ay lasum borom daru lasum sama toma ay Godar. waaw yenn yenn jàmbaar yi booy édité yi. sa sa teg na teg na ci five maa moom five fi ah, merci beaucoup. <laughs> waaw noonu la demee nag <laughs> yow loo def noonu la. benn instant euh, rakk ji danga ne sa diggante garmi instant bi ça veut dire que ne promoteur bu taxawoon pour dox combat bi yow pare nga. kooku noonu na jéem a gérer njabootam yi na jéem a gérer njabootam yi na jéem a gérer njabootam yi kooku am na ñaari tur tànk. kooku mag la bàyyil ki ngay sosal bàyyil ndaanaan bi ngay sosal barki maam Thierno loolu moo am man xale te moom mag la te moom mag la waaw léegi bu dee gar mi mag la gis nga gis nga jël bu rëy bi mu daan Lumumba bu dee gar mi mag la ba taxawee diggante ak Lumumba ci biir ci biir enceinte bi ku xool Lumumba da ko long large ko mais mbot xoolal fii la ko teg fii ci anse bi la ko teg yóbbu waa ji xalangu bu ko fa dem yoonam garmi di der garmi di guerrier am fit mën a bëre. ma kamag la lu ma maa moom noonu ngay wax kooku kamag la mag maanaam mag la doole si yax lay nekk ñooñu amuñu doole. yow da nga wóolu sa doole. barki Seydina Ousmane moom garmi moom noonu nag moo ngi toog si média yi naan kenn musu daan sam benn booy daan na ko caas maa moom ñooy ànd guddeeg bëccëg entraînement jaxaay war na Serigne Touba Mbacké ñëpp a dem lam fii waaw di siyaar nag sama benn gaan siyaar maa koy siyaar bu baax a baax a baax sama jigéen xawaa waaw sama jigéen tamit ndey maa ngi koy siyaar bu baax. tudd nga fi tudd nga fi cité bu ngor cité bu ngor lan la fi defagum. lan la fi defagum bëri na fi deux combats benn combat nul benn victoire. voilà noonu la demee nag ñoo ñoo ñëpp làmb dañoo boole loolu kursu la. loo mën ci cité bu ngor. bu ngor. lan nga mën ci cité bu ngor borom daaru. dóor ko ku daw jàpp ko daan ko. c'est très c'est très facile kon yow xamoo Siteu bu Ngor kon. làmb dafa metti loolu daanul Siteu bu Ngor dóor dem jàpp daan loolu daanu ko. làmb daa metti na booy bàyyi toog si média yi di wax. Siteu bu Ngor suñu morom la. billaay wallaay ay Franc yow xam nga lu ma lay wax bu baax. Franc bu parcelle. ñoo ñëpp làmb dañoo boole. yow nag damay ragal ni nag yow mii nag booy nag yow. ya ah attention borom daaru non bul yëngal <laughs> dalal rek tey du bësu yëngal xoolal tey jour waxtaan na parce que rakk ji. yow ñi gën a dee ci say morom ñoom ngay tudd instant bi yaw boo tuddee cité bu ngor may wax pareegu ma nga tudd franc mbër bu parcelle. déggoo lu ma la wax de man yenn jàmbaar ñoo nekk sama ginnaaw moo tax man du ma ragal dara. yenn jàmbaar ñoo nekk sa ginnaaw. waaw moo ragal dara. waaw noonu la demee. gars yi ku ñëw. marché bu bees yow xam nga marché bu bees bu baax garage. waaw marché lambada marché bu bees. mat ga marché njaareem. waaw Pàkk Lambaay ñoom Asay ñoom Abdou. ñom bas yenn ya jambaari fo dama fa am nga ndee mafia billaay wallaay wa ta'ala ginnaaw ray ya sax amna fa mafia barki alxuraani karim kon yow mbolo mi kon mbolo mi mbolo mi bari na man aduna moma xam aduna kon bes bo naron gën di bari ji bu sa combat taxawoon tay arène nga wara gën di bari ji bobu la gars li sip action après nga may xam yow après ñun moy lool ñun ay ndaw lañ defaguñ dara ci lamb coow jibul kon dinaa la suivre de près yëmbal noor ñoo ah? ngi yëmbal ah, ah, noor. noor c'est le bimbam. ah noor c'est waaw day metti c'est le bimbam mooy day metti loolu noonu waaw lu bees la sama benn boy wu nekk Alba moom ko slogan woo ci waaw. d'accord c'est le bimbam. coow jibul dégg naa la waa léegi yëmbal noor fii nii question bi nag yow bokkoo ci ah euh, kan moo fi dàq bëri. yëmbal noor kan moo fi dàq bëri dof bi jàmbaar bi. Cobra borom bi yëmbal dof bi. <laughs> ndaanaan a ngi noonu ziaraat Cobra. danger non may ma tuuti rek maa ngi ñëw. danger bu mag may ma tuuti maa ngi ñëw jox nga ma Cobra n'est-ce pas. léegi làmb ji wërngal këpp bi yow bokkoo ci ah làmb ji kan moo fi dàq bëre. kan moo fi dàq bëre. ah ki fi bëre kenn la ñun yëmbal lañ dëgg. làmb laa la wax làmb ji waxuma la yëmbal de instant bi dama la ne làmb ji wërngal këpp kan moo fi dàq bëre. kan moo fi dàq bëre. Cobra. Cobra moo dàq bëri ci làmb ji. Cobra moo dàq bëri ci làmb ji. bañ bañ bëgg la ñun waaw waaw yàgg nañ ko xam yàgg nañ ko yóbbul làmb barki alxuraani kenn jàmbaara yoo xam nga lu mais bëree daan ñibbi waaw su bëree mu neex bu xeexee mu neex billaay wallaay wa taala yàlla jàmm rek Cobra moo dàq bëri ci làmb yàlla na ko yàlla may combat bu baax loolu la ñuy ñaan yàlla moom tamit sama gannaaw bu baax la barki alxuraan ay baara 205 Boy Diop yenn jàmbaar i def ay Siteu waaw ay Boy Diop numéro 2 Cheikh Siteu gaa dal suma limé da moy juum barki alcorane ak nguy nguy lo lepp tamit mom la barki alcorane sama toma bokar ben son ngane Cobra mo dakh bëri ci lamb ji may defal sa top 5 juróomi mbeur yi dakh bëri ci lamb ji kan kan kan la Cobra kan ah ñun wala wala déggoo lu ma wax man waaw man yenn boy sax duma len seetaan man Cobra rek lay seetaan mom la xam ko lamb ji la wax lamb ji wëngal kepp

ak euh, euh, euh, danger ñi ñu dàq bëri ci làmb ji. waaw ndax xamale ñun yëmbal fii lañ dëgg. waaw ñi nga xam. ñu dëgg Pikine Pikine la ñuy tiitaroo ñun yëmbal ak géejawaay lañ am. voilà qui est laaj nga tontu rakk ji benn instant dama naan bëre fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo ci mbër. ba moo ci solo ci mbër. entraînement waaw. entraînement moo ci ëpp solo ëpp. entraînement solo. moo ci ëpp solo. léegi yow nga war a bëre ji un jour ñu woo la téléphone ne la allo euh, borom daaru dafa am règlement bu bees bu wàcc yow sa bëre sa fit sa entraînement sa gàllaaj foog nga bàyyi ci benn ñett yi nga yóbbu làmb ja nga bàyyi benn bi ban ngay bàyyi sa sa bëre sa sa entraînement ak sa gàllaaj ñu ne la ñett ñoo dem làmb ja foog nga bàyyi benn bi ban ngay bàyyi ban laay bàyyi lépp laay yóbbu non ñett yi nga yóbbu bàyyi benn bi ñetti laa yóbbu bàyyi benn bi. galaaj bi laay bàyyi. Ah, ngay bàyyi nga yóbbu bëree fit entraînement. waaw nga bàyyi galaaj entraînement. noonu la demee nag. Euh, lan moo tax mënoo bàyyi bëre bi. bàyyi bëre. Ah, damay laaj rek dama la ne nga yóbbu bàyyi benn bi nga ne ma galaaj ngay bàyyi léegi dama la lan moo tax mënoo bàyyi bëre bi. lamb lañ am moo tax. damay bëre ji. moo tax mënoo bàyyi bëre mun ma koo bàyyi. billaay wallaay wa taalaay. d'accord léegi nga léegi lan moo tax mënoo bàyyi entraînement. lu tax mënumaa bàyyi entraînement bi sama moroomu góor damay waaw si géew bi damay jëflante moom. moo tax mënoo bàyyi moo tax du mën a bàyyi. lu tax mënoo bàyyi fit bi. fit si géew la fit dañ koy judduwaale. fit dañ koy judduwaale. ba ci daal gàllaaj ngay waaw gàllaaj bi kese laay bàyyi gën a yokku doole. maa ñun ñun mooy loolu de ay ndaw lañ de. billaay wallaay wa taalaay daa am loo xamante ni dafa toog suñu ginnaaw lu bëri sax. wër na borom daar yàlla na yàlla def jàmm rek. Euh, benn instant dama naan euh, rakk ji euh, bi nga dalee seetaan làmb ba tey ban combat nga dem stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog tele bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko fàtte maanaam combat bi la gën a marqué ci làmb ban komba la. combat Cobra. Cobra limousine. limousine Cobra. waaw ak góor a soog. combat woon noonu non non benn benn nga ma jox ma benn jox ma benn ban combat moo la gën a marqué ban. ban combat moo ma gën a meedi. marqué moo gën a gën a neex wala moo la gën a métti mais combat bi la gën a marqué. moo a a soog. waaw boobu moo la gën a marqué ci lamb. billaahi parce que a woon sa mbër metti tamit moo ñu gën a metti ñun ñëpp yëmbal. jour boobu mooy loolu ñëpp a jooy. gëm a woon ni mbër day daal ndax moom jàmbaar la quoi. billaahi wallaahi wa taalaay. billaahi. mu ngi nekk ci ci bu exceptionnel tegalee six victoire. billaahi moo ngi dem si waaw. bobu tamit xamal ak mo ngi nek ci diggu dolem ya ma gëna xam. defet bobu ba legi tam bëre waatul sa pour rectifier defet. wa non la démé nak yalla nako yalla defal jamm rek mu am combat bu baax lool rek lañuy ñaan yalla wa lool lool dafa leer euh par la suite dama nan euh, rakk ji yow bi nga dalé bëre mbapat ba arène ban victoire mo la gëna neex ci sa carrière. sama combat bu muju bi sama ko bu muju bi sama digënté ak Bada 2 Bada 2 manam mom dañu wara war a lamu ju neex la manam mom ñun ñëpp ay morom lañ kursu la wax naa la ko sànq booy ay élève lañ booy xamuñu aduna dama leen di xamal aduna da nga leen di xamal borom daaru billahi wallahi wa taala ba tax daal victoire bi la gën a neex sa carrière mooy sa diggante ak Balla 2 aussi dama naan bi nga dalee bëree mbapat ba arène ban défaite moo la gën a metti ci sa carrière boobu dëgg fii alba fallu fallu ma waaw fallu mécanicien dóoru moo ma daan man benn défaite boobu laa am man ñii ñoo ma xam jàmbaar ay got wër na borom daaru booy marché yaay nii ma fi yaa paquetage bi billaay wallaay. wala gën a métti sa sa moo ma gën a métti sama carrière barki alxuraani karim billaahi yàlla na yàlla def jàmm rek loolu la. mbër mi waaw waaw gis ngeen de gis ngeen mbër mi c'est borom daaru borom daaru bu yëmbal borom daaru bu géej waaye école de Langsane rakk ji euh, damay dellu si waat ci question réponse mais benn instant damay xawa genn tour ci lamb ji dama nan euh, mbeur mi euh, da ngay sétane football. man non man moma ah, duma sétane football quoi man lamb rek man lamb lay dund quoi. lamb rek ngay seetaan. noonu la démé nak équipe nationale Sénégal bu football doko sétane non équipe nationale nga wax équipe nationale wa ah, équipe nationale ndax ñun wa ñun ay doomu réew mi lañ. Mhm. nice dañ ngay sétane nice. ben instant est-ce que man nga ma limal 5 joueurs équipe nationale Sénégal. ah loolu duma ma si kii loolu duma ma si wax naa si. si wax mooy lan du ma wax naa équipe nationale Sénégal ma doo ci wax booy nañ. man laay dund lamb laa xam. lamb kese. waaw boo ma laajee si lamb ma tontu la si lamb. doo suivre kese laay suivre. kese. coo jib coo jibul maa laaj nga eh, way nga kontaan. benn boy Moussa la mooy fii. waaw ah, Moussa la kooku day woy waaw day woy rek yaa ma gën a way Mor Sylla waaw Mor Sylla mooy sa waykat waaw moom tamit sama lonkoo la sama sama xarit la ñoom tamit dañuy ñoom ñoom gars yi dañuy jàpp si làmb yi billaay wallaay su ma amee combat kenn du nelaw war na borom daaru billaay wallaay wa taalaay Mor Sylla daal mooy sa waykat waaw mooy sam waykat waaw yenn yenn jàmbaar yi ah damay. ba ñëw ci fin bi ñu bu ñu ñëwee ci fin bi dama lay may nga sant gërëm ba waaw mooy loolu. yow ceenal ceenal samay question rek benn instant mais raka ji par la suite dama naan kan mooy euh, Sénégal fii kan mooy sa comédien préféré koo xam ne mënoo ko muñ koo xam ne bu actionné rek nga xaqataay. ngir maanaam. maanaam comédien boo xam ne moom mooy sa comédien préféré. ñanko ñanko. waaw ñanko falamaale. waaw ñanko waaw ñanko borom sans waaw. noonu la demee nag. ñaanku mooy mooy sa comédien la demee nag moom tamit yëmbal fii la dëkk yëmbal si la bimbam. maa ngi koy wootee moom man waaw su ma amee laamu lii na ñëw jàpp si ñaanku. ñaanku fara maaran yow laay waxal boo amee làmb su ma amee làmb nga ñëw jàpp si. voilà qui est clair euh, euh, euh, message bi passé na mais booy lan mooy sa coob sa plat préféré. lan mooy sama coob man cere laay dundee cere rek man xale te man pël